salaamaaleykum wa rahmatullah mbokki jullit yi mbokki Sénégal mbokki réew mi ñu ngi leen di nuyu di am mbégte euh, indil leen événement bu mag bi nga xam ne mooy événement conférence bi nga xam ni téeri marché Grand Thiès ñoo koy amal le 9 mars incha allah fii ci marché Grand Thiès ci rond bi nga xam ni mooy rond-point euh, ci jumaa ji ci bayaalu jumaa ji incha allah ñu fas yéene ko fa amal le 9 mars di ci woo mbooleem koo xam ne rek euh, moom la ñu bokkal dëkk bi rawatina ñi nga xam ne ñooy kilifa diine yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi bàyyiwuñu kenn euh, bu ko defee ñu ngi fi jotaay bi ak ñi nga xam ne ñooy responsable yi ak ki nga xam ne moo jiitee association marché Grand président Malick Fall di ci woo mbooleem koo xam ni rek moom la bokkal li nga xam ne mooy Poussa Massine bis bi nag ñu jël ko darajaale ko kilifa goo xam ne kilifa gu mag la muy Alassane Niang di responsable politique nekk fii ci cees euh, di fi liggéey liggéey bu rafet waaye yàlla def xale yi naw ko bëgg ko ci doxinam ci taxawaayam ba jël bis bi dara ko kañ lay am le neuf incha allah duñ sori ci kàddu gi dañuy jël euh, kàddu gi jox ko ki nga xam ne mooy président malik mu wax ñu bis bi naka lay tëddee ak kan mooy def ko rahmatullah taala wa barakaatu ñu ngi ni mbokki Thiès mbooleem ñi nekk Thiès yëpp Sénégal yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di nuyu le président Al Assane Niang di ko ziar bu baax di ko jox wàccuwaayam ah ñu am nag euh, conférence religieuse bi nga xam ne dañ koy waajal le 9 mars yàlla dogal ñu def ko parrain d'honneur bi nga xam ni moom lañ jagleel bis bi Al Assane Niang mu nekk nag doomu Thiès nekk tamit doomu réew mi mais nekk koo xamante ne macha allah ñëpp gis nañ taxawaayam ci réew mi ñu kontaan ci lool macha allah moo waral tey ñun ñi nga xam ne ay artisan lañ di ay téer nekk Grand ñu jël journée bu mag bii nga xam ne moom la ñuy organiser jagleel ko ko tey di ko remercier nag bu baax a baax ci taxawaayam ci population bi même en même temps taxawaayam ci réew mi nga xamante ne macha allah mi ngi ci def li nga xam ne moom la war a def journée la nag boo xam ne moom la ñuy def suba si bu ñu xëyee incha allah dañuy riser le Coran nga xam ne buñ ci jógee nag dem ci euh, ci tànt bi nga xam ne kiñ ñu koy defal nag mooy tafsir Abdou Rahman Gaye ñu jagleel ko waa Sénégal gépp waa Thiès yëpp di woo nag ñëpp nag képp koo xam ne yaa ngi nas puso ñu ngi lay woo ci bis bi di ci jiital aussi suñu kilifa la président Mamadou Seck ñu ngi ko ci woo bu baax a baax a baax mais di ci woo képp koo xam ne rek yaa ngi nas puso Thiès ak li ko wër yëpp bàyyi kenn nag xëy na mën nañu lim waaye dañuy bañ a juum may képp koo xam ne yaa ngi nas puso te nekk Thiès ñu ngi lay woo ci bis bi nga xam ne bis bi nag Al Hassane Niang moom lañ ko jagleel macha allah ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen sant di ko sant nag macha allah ci taxawaayam ci réew mi mais ci taxawaayam tamit ci Thiès macha allah ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku ci nekk sa trop fa sant maa ngi nuyu waa Sénégal yëpp. di nuyu waa marché Grand Thiès di nuyu waa marché Moussantek su ma limee damay juum bàyyiwuma kenn di wax ci kàddu jigéen ñi di wax ni danoo am programme bu mag conférence incha allah le 9 ca Grand Thiès maa ngi woo bépp jigéen bu nekk Grand Thiès di ci jiital ci jigéen ñi di woo Ndeye Assa jigéen ju mag góor maa ngi koy woo di woo mbootaay bu mag bi nekk Grand Thiès te Penda jiite ko Adja Côte jiite ko. Euh, maa ami jiite ko maa ngi leen di woo ñoom ñëpp di leen woo di leen wax ni mbir mi seen mbir la di kontaan nag bu baax a baax ci Alassane président ñu ngi kontaan bu baax ci yow waa jiital wareef ndaxte ba nu jëlee bis bi tuddee ko ba tey jugul dinu dinu toppatoo di xool ci lan la nu nekk ak yëfi fu mu toll ñu ngi koy gërëm di ko sant te jugul lu dul jàppale jigéen ñi te ñu tam jigéen ñi ku ñu jàppale rek ñu jàppale la di wax ni conférence bi bëgg nañu képp suñu yemee ci tailleur rek day day day doy waar ñu ngi woo commerçant commerçante ñëpp bàyyiwuñu kenn di wax ni conférence bi seen conférence la incha allah le 9. wax ni conférence bi Abdourahmane moo koy def incha allah le 9 di woo bépp jigéen waa Grand Thiès ñëpp ñu ngi leen di woo bu baax a baax di gërëm di ñëwaat di gërëmaat président parce que suñ duñ ci doyal. duñ ci doyal président Alassane jiital wareef duñ ci doyal parce que euh, fi nga nu teg ak li nga nu defal. ku ko defal ku ne rek nu am foo xamante ni dañ la fay teg te ñun jigéen ñun jigéen ñi ku nu jàppale rek lañu xam jigéen ku ko jàppale rek la xam te nag dañ ne réew mi jigéen ñi ñoo ko yor kon jigéen de réew bu doxee rek jigéen a ko yor kon président ni ngi lay gërëm di la sant gis nañ sa taxawaay yal na yàlla mottali yéene yi ba nu sunu yéene ñun tam bi nu am ci yow yàlla defal nu nu yeggale ko ci barke Seydina Muhammad di woo nag ñëpp di woo jigéen yëpp di leen wax bis baa nanu teel a génn borom musóor yi incha allah conférence bi réussir te bu réussir ñun ñëpp la réussir tailleur yëpp la réussir incha allah maa ngi gërëm di sant jërëjëf maa ngi jël kàddu bi di ko jox président Alassane jiital wareef. mu yeggale kàddu wa rahmatullah taala wa barakatuhu euh, maa ngi nuyu euh, téléspectateurs yi yéen ñëpp di leen jox seen i wàccuwaay di leen nuyu seen i tur ak seen i sant. Euh, di remercier association des tailleurs de Grand Thiès waaye su ma jaaree ci ñoom rek maa ngi remercier tous les tailleurs de Thiès mais également du Sénégal. Euh, di leen di gërëm ci li nga xamante ne moom mooy teranga bi nga xam ne defal ngeen ma ko di ma tuddee seeni i conférence bi nga xamante ne euh, Tafsir Abdourahmane Gaye moo koy animé euh, Tafsir Abdourahmane Gaye nekk koo xamante ne sama xarit la macha allah xamante ne ñu nekk koo xamante ne lépp lu mu dugg moom xam naa ni succès lay doon conférence bi ngeen ma tuddee nag loolu moom aw ma seen fay ndax lépp loo xam dafa aju ci diine. lépp loo xam ne dafa jëm ci euh, yoonu suñu borom loolu moom kuñ la ko tuddee rek loolu moom je crois que amul leen lenn loo xamante ne mën naa ko def pour fay leen donc maa ngi leen di gërëm yéen ñëpp euh, di wax ni loolu événement bu mag la comme événement bu mag la li nga xamante ne moom moo ñu war en tant que président de parti euh, nga xamante ne mooy jiital wareef le devoir en mouvement suñu parti xam la ne képp ko xamante ne mi ngi wuyoo jiital wareef rek incha allah dina teew ci bis boobu di woo Sénégal yi dans leur ensemble tàmmale ko ci waa ne leen conférence boobu yéen ñëpp na ngeen ko fekkee euh, ñu ngi ci woo waa Sénégal di woo ñëpp ñoo xamante ne daal ñu ngi wuyoo euh, ci turu laa ilaaha laa rek woo nañ leen invité leen ci cette conférence mu doon benn réussite boo xamante ne ñu ngi koy ñaan suñu borom euh, gërëm leen bu baax a baax ci teranga bi di wax ni li ñu war a def bu neex suñu borom incha allah pour que mu doon un événement réussi dinañ ci teg suñu loxo teg ci suñu tànk pour que loolu doon loo xamante ne. Euh, ngeen mën a am lu weesu seen i njort gërëm nañ leen bu baax a baax a baax ci teranga bi euh, di ñaan suñu borom yàlla na ko yàlla def réussite ci barke yéen di ci woo jullit ñëpp euh, bis moo koy def oustaz Abdourahmane moo koy def incha allah rabbi mise en place bi mu ngi nekk à 16h foofu ñi nga xam ne mooy bayaalu jumaa ji incha allah ñu ngi ciy woo jullit yëpp bu ngeen déggee président ni mu wootee ak ki nga xam ne moo doon wootee ci turu jigéen ne bis bi bàyyiwuñ ci kenn képp koo xam ne yaa ngi wax ashadu la ilaha illallah wa ashadu anna muhammad rasulullah bàyyiwuñ la euh, bu ko defee ne ko ñëpp ñëw fekkee ndax ki koy def conférencier la bu Sénégal xam xam-xamam rafet na sell na bu ñu ñëwee képp koo xam ne yàlla indi na la fa di ko fa jëlee njëriñ bis bi nag ñu ngi ko àndal ak ki nga xam ne mooy président Alassane ñang mi nga xam ni mooy responsable parti bi nga xam ni mooy euh, jëf wareef di parti turu jiital wareef di tur bu am solo bu defee moom lañ àndal ci bis bi mu nekk parrain officiel bis bi kon bis baa ngi noonu incha allah le 9 mars Mustafa yow doomi Abdullahi yow sayduna Muhammad nga kow nu bi teddal kulli insaani yow sayduna Muhammad moo ne yonen bu ne balaa ñëw dana déclaré say mbir Moustapha ñëpp def ni ñu màggal yonti yàlla Muhammad ndaanaani ndaanaani yaa leen jox la ñuy daane yow yaa rasulallahi ku la sopp texe na Moustapha ku bëgg texe na ku la te mi dëgg sa yàpp yaram araam na safara ndax safara nee na tàng tàng ak li may mën a mën lakke man safara rus naa la ko xool bu bëgg sayiduna muhammad a sayidana rasulallahi yow musa yow mi ñuy tàntal la a sayidana rasulallahi innani musa ñooy sa géwal yu lay way yow sayduna muhammadu chel hajab day si maalik nee na soppeta du jaaxle ëllëg ca bis ku sopp yent yàlla muhammad ëllëg de bis ba def ko fidaa i sidil mursaliin ku sopp yent yàlla muhammad mooy haadil baraaya kenn du yaa rasulallahi li ridallahi walidi zahra'i xamru sawqin man zaqahu la yubali ku bëgg yonti yàlla muhammad man ata la iman bidun imtira'i qutbu taha lil muznibina najatun wa amanu min hawli yawma liqa'i inna xutba nabi xaalata laxmi wa izaami wa dama duuna riyaayi yow yaa rasulallahi taar gi ci yuusufa ak neex baat gi ci daawuda nguurub suleymaan jël nañ ko jox ko muhammad doomi abdullahi keroog ba muusa di dajeek firawna ca bahru kalsum sudul ko nag yonent bi mbir ma saf kaani est-ce que bi la yonent mbir ku sopp yonent bi defal ni moo rëy mbir yonent bee foor yonent bi la yàlla rañaanan lay ci weeru ndayu koor di way suba ak ngoon ak ci njolloor ku yor bakkan war nga ni jaajëf sayyiduna muhammad mam bamba ne yonent yàlla muhammad lam yaddu misal musawa muhammadin sirran wa jahran fil bara ya samadi madalla al islam wal kufra wal ma'a wa bi nasihati li kulli samaa Sëriñ Tuubaa nee na sayyiduna muhammad يقود بالظاهر والباطن من أتى لله في كل زمن خدمته عن العيوب أذهبت والاستقامة وصهوا وهبت كسوب ينتي بدفلني ليبانا ليبانا كون مصوى رئيسا لكل من قد فضلوه رؤوسا وصليا يا إلهي وجزيا أبدا عنا محمد موي مختار في الحلم